وليس يهلك منا سيد أبدا إلا افتدينا غلاما سيدا فينا لو كان في الألف منا واحد فدعوا منفة xaalahum iyaahu yaabu yaanuuna waaw waaw mu mel ni loolu Serigne Cheikh daf ko feeluwaat wax ni inna bani maliki min xayri nisbatihi laa yaarifi luma minna ahdathu rajuli ma defe ni kon nag loolu buñ ci dëggee ñaan yàlla mën na def sutura incha allah yàlla faj aajo yi gis nga Sénégal ko yàlla defal kenn xamul lan la seulement jaxas yu bare danay tax léeg-léeg nit du jariñoo la mu war a man dama koy wax bi may ñëw démb ci gàmmu gi waxuma la la commencé ci dernier bourde ba ci bisu noppalu bi mais bi ñu deparee Dakar ba bi ñuy ñëw Tiwaawoon loolu yépp ci xeetu kaar ci xeeti oto ci xeeti bus ci xeeti ay scooter ñépp mu wóor la ni ñoo bokk fu ñu jëm loolu ku ko yàlla defal ci loo amul ci réew ma yow la neex mu mel ni kon nag yaakaar yooyu bi màggal gi amee it c'est la même chose kon nag barke yëpp daje nañ fi te sëriñ Cheikh Tijani moo ko waxoon sëriñ Babacar waaw raxalat ilayka taummuha bi rijaliha al arabaatu والكعرات رحلت إليك وفي انتظام رعالها وهدوئها في سيرها آيات رحلت إليك لخير ما رحلت له من قبل في إسلامها السادات dara desu fii mu ni la daan dikkal yonent bi rek moo dikkal ñu baax ñi nekk fii kon nag ñu ñaan ci seen barke lii sëriñ wax wax na dëgg coono yi bare na tawat yi bare na dafa tollook mag ñi dañu yar ñi fii ba ngor gi ngor gi moo ëpp saalit gi waaw ngor gi moo ëpp saalit waaye ñaan nag du fi jóge li ma dégg ni sama mam Mansour daan na ko tooñanteeg soxnaa sukkan bu masaan ñëw di nuyoon teeg soxna asukan ak sañse bu rafet ba ak tàmb sembe ba bu mel nii mu teg ko ci kaw gis nga tàmb sembe bii soxna asukan moo ko billaahi wal bi soxna Sofi moo ko donn ci moom bi ñuy def miraat mu yëkkati ko joxaat ma ni ma yow laa koy jox waaw moo tax ma am ci yaakaar lool waaw waaye sama mam Mansour bu masaan ñëw ci soxna Asu ak ni ñu miinantee soxna Asu di ko tàpp nag ni ko ah tey dépense bi tey dépense bi mu ni ko soxna sa ah, mu ni ko rafet lool waaw ah, mu ni ko jiba dara <laughs> waaye fekk na am na ñu nga xam ni la leen yàlla terale leneen la lu dul ay dërëm mm-hmm. waaw xajul ci poche billaay billaay waaw moo tax tabarkal la ni ko soxna ki ne waxee bu ñu sellalee xol yi rek yépp rek lewu waaw bu ñu sellalee xol yi yëpp rek lewu incha allah bu ko defee kon nag ñu ngi jëm ci ñaan bi waaye itam dañu bëgg a sant xëy na njaboot yi tudd nañu leen waaye yow itam nga tuddal ko sa bopp dafay rafet wax dëgg yàlla sunu mbokk El yu Youssou Ndour at bu jot dafay def taxawaay bu rafet wax dëgg yàlla ci wàllu sunu lu mu am ci matériel mu indi ko pour jàppale ko njaboot bi avec désintéressement kon nag ñu di ko sant ci loolu sant itam ñi mu bokkal métier bi ci wàllu presse moo xam ñi yor télévision yi la moo xam ñi yor rajo yi la moo xam ñu yor journaux yi la ndax itam li mat a bàyyi xel mooy ku fi mën a ndekk yilif réew mi daa mas a dem bàyyi ñu fi ak ñoom kon nag moo tax ñun ñu rafetoo moom rek moo ñu jig waaw presse mënuñu am ci mbokk lu leen ëpp waaw wa tabaarakallahu ndax koo xam ne loo nekk moo koy génne moo koy vilipender moo koy joxe l'essentiel mooy li ma wax biig bu may cité ku tudd ni imam Busiri def ko journaliste di cité ku dey ni Seyid Cheikh Ahmed Tidiane Sy def ko journaliste ma leen di xamal ni seen métier tuutiwul waaw bu ko defee kon nag seen mission lama leen waxoon rek mooy dellusi si yéen bokku leen ak tubaab yi nga xam ni horreur médiatique ca la ñu tënk seen bopp yéen seen chance ak seen valeur mooy ngeen tënk seen bopp ci honneur médiatique waaw te loolu lañu yaakaar ci yéen te ñu ngi koy gis yéen a ngi koy doxal fa tabarakallahu yal na yàlla jàppale leen ci bi ci des it mooy sunu mbokk gendarme yi ak police bi ci jàppale yi ñuy jàppale du ci événement yi rekk mi ci yëpp waa ci yëpp fa tabarakallahu dinañuy faral di dajeek ñoom ci biti tabarakallahu kenn ku ci ne defe ci taxawaay bu rafet waaw mu mel ni li sëriñ Mouhamad Mbacke wax bi gàmmu ngi ñëw ni bu ma juumul yaakaar naa bisu dernier bourde la dama nekk ci circulation bi mu ngi xaw a xat ci almadi jëm kër ga bi ñuy toll foofu noonu ci rond-point ngor bi ma gis sama mbokk Baay Faal yi ñi yore seen këll yi di arrêté oto yi ni nañu joxe seen sarax ku ñu kii rek nga ubbi sa vitre jël la nga am jox leen di ko def di ko def ba ñu yegsi ci sama oto ma wàcce vitre bi mu ni oh <laughs> ndeysaan ah ndeysaan ma daal di yëkkati la ma am ni ki man rek la yella ma ma jox di koy yëkkati ay billet jox ko mu ni ma bii de du jëm ci këll bi waaw <laughs> <laughs> di jël def ci poose bi daw ba ca beneen mbokk ma ni ko sëñ Moustapha nekk ca oto bee <laughs> kooku it daw si daw si ñëw def si oto bi mayit ma génnewaat yeneen billet jox ko mu daal di dawaat moom itam ca keneen ni ko sëñ Moustapha nekk ca oto ba mais li ma gën a neex mais bi ma yëkkatee billet yi di ko ko jox talul sax billet bi billaahi wal kitaab bi mu ne ma barke sëñ Touba barke sëñ Touba barke sëñ fi yàgg barke sëñ Touba di nga fi yàgg waaw waxin bu rafet boo xam ni billaay ci xolam du jóge waaw di ko wax ndeysaan maa ko mujj force pour mu jël billet mu mel ni ku tàggook sago waaw dundal sa dund am na njariñ parce que sëñ Touba daa fi yàgg waaw waaw ndeysaan mu marqué ma façon bu nga xam ni moo tax luy dëgg rek ay dëgg waaw moo tax xol yu sell rek a am solo mu mel ni loolu kon yal nañ ko yàlla mottalil yàlla defal ñu ci sutura te yàlla defal ñu ci tawfiq kon nag moom sama rakk di sama lépp mook Cheikh Al Omar tey yéen lay ñaan ngeen joxe dog bi waaw waaw ah, loolu beneen bis la de. waaw ndigal la. waaw <laughs> sëñ dafa ni dañuy ñaan <laughs> ma ne ko loolu mooy yàq kàddu altine ji gars yi sonn jóge fi ñu jóge biig ba léegi ñu toog fii mm-hmm. ñun ñu dawale sunu oto sunu kër ba fii nga ñëw ñaan ñaanal mu ni ndigal ma ni ko kon ñu xëtt ndigal sëñ bi dañuy xëtt ndigal waay. ah gànnaar ba Sénégal dégg kon nag. allahumma anta rabbi. fa anta rabbu rabbi. waaw anta rabbi wa ilmuka xasbi fa nicma rabu rabbi wa nicma alxasbu xasbi tansuru man tachaau wa anta alazizu arrahim nasaluka alcismata fi alxarakaati walsakanaati walxataraati walkalimaati waliraadaat min alshukuuki waldunuuni والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى wa saxarta annaara li ibrahim wa saxarta arriyaaha waljinna walshayaatina li suleyman wa saxir lana kulla baxrin huwa laka fi l ard walmulki walmalakut wa baxra addunya walaxira innaka ala kulli cheyin qadir allahuma yassir lana umuurana maa arraxati li quluubina wa abdaanina والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسحهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون walaw nachaau la masaxnaahum ala makanatihim fa ma stataau mudiyan wala yarjiun ya siin walqurani alxakim innaka la min almursalin ala siratin mustaqim tanzilu alazizi arrahim litundira qawman ma undira abaauhum fa hum gaafiluun laqad xaqa alqawlu ala aktarihim fa hum la yuminuun inna jacalna fi acnaaqihim aglaalan فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وقد خاب من حمل ظلما وقد خاب من حمل ظلما فتبارك الله أحسن الخالقين kon nag ñu tëb dem ca ba ca des bismillahi baabuna tabaraka xiitaanuna yaasin saqfuna kaaf haa ya ayn saad kifaayatuna xiimim ayn sin qaaf ximaayatuna kon nag fa sa yakfikahum allahu wa huwa samiul alim sitrul arshi masbulun alayna wa aynullahi nadiratun ilayna bi xawlillahi la yuqdaru alayna wallahu min waraihim muxiit bal huwa quranu majidun fi lawxin maxfuud fallahu xayrun xifdan wa huwa arxamu rraximin inna waliya allahu alladi nazala alkitab wa huwa yatawalla alsaalixin fa in tawallaw faqul xasbiya allahu laa ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabu alarshi alazim bismillahi alladi laa yadurru maca ismihi sheyun fi alardi wala fi alsama wa huwa alsamicu alalim wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim yal na yàlla dugal ñu ci biir faj ci aajo yi defal ñu ci sutura ni mu ko waxee moom Habib yal na ci ñëpp tëbb ñëpp jariñu ci ba mu faf laawaan ba ñëpp jot ci incha allahu ci barke mag ñi incha allah bu ngeen gisee ma tëb li ma tëb nag waaw kay def di yëfu mag ndax bi ma sëriñ Babacar si di jox wasiya bi boole koog assabaul mathani ci ñaari xatt yi alxattu nuuraani passage boobu la ma jox ca xisbul bahra moom sëñ Babacar ni ma waaye bu koy jàng ci kese kese waaw dafay laaj idn ma soog ko jàng pour tout le monde waaw moo tax na kon nag waaye yéena naa leen ko ci sama biir xol la ca nekk ci garanti sëñ Babacar jox ma ko yal naa ko bokk ak yéen waaw ci barke mi incha allah wa kon nag sëriñ yaa ko moom lépp wa tabaarakallahu nga mooy li muy wax ci nit ñi bëgg di firi lu ñu xamul lan la ba keroog bi may wax ni jaan boobu bu yonent yàlla Moussa boobu dama ni moo ngi ci tariqa cheikh dama ni am na kilifa bu faatu te fekk jaan boobu moo ko fi jël si ku nekk interprété na ko et pourtant ça fait plus de vingt ans te dara taxul jaan bi ñëw jël si kilifa ba lu dul jaxase ba mu bëggoon jaxase Serigne Mansour ak Serigne Cheikh te sëriñ Babacar nanguwu ko waaw seen diggante def ko tollu loon nu nga xam ni bëggul keneen dugg ci wallaay jox mu ngoog wallaay wallaay wallaay te ñu nga ca daara ja ñu nga ca daara ja ma ni ko diw léegi mu dem ndax li muy def diggante Serigne Cheikh ak Serigne Mansour dootu fi toog waaw faf jaan ja ñëw rek yóbbu ko waaw waaw moo tax tabaarakallahu am na noonu moo amee foofu nag la amee sunu diggante yi waaw ku yebu rekk diggante yi yépp ku yebu bàyyi ci xel waaw bu fi kenn jéem a dugg bu fi kenn jéema a indi lu fi bokkul waaw waaw incha allah bu ko defee kon nag ah sant yàlla buñ fi yendu woon nit kenn du ko yëg waaw walaay ndeysaan waaw mun yet yi taybatu waaw du dëgg la abri siwaha fa biha alxusnu l amri qad sanaaha wallaay ndeysaan mu mel ni kon nag sëriñ nee na moom nanguwul ñaan xanaa bokkoon ñu joxe bokk ñaan rek ñu ànd ko ñun ñëpp dugal ko ci ñaanu mag ñi incha allah beneen yoon nag comme doon na ma wax xisbul baxri bu sayduna aadam bi bu ñu seet ko rek waaw ah, Seydina Adam moo yónni mag mu ñëw ni jëlal xisbul baxri bi nga bind ko ci sama adat waaw ah. adadu Adam waaye mu ni ma cinq yi rek ngay bind noonu ni mu nekkee bi nekk fa la affaire ba nekk waaw mu wax ma secret ba waaw <laughs> ndax mooy tax lii mën a nekk waaw mu jox ma secret ba ñu yóbbaale leen ca waaw incha allah waaw soobe yàlla waaw waaw waaw allah waaw tax na kon nag mag ñaa ngi baax rek ay saan fan yi passé rek benn xale bu jóge ci pays arabe yi mu ngi ñëw ni ma dama am yóbbante man ko ban yóbbante mu ni ma góor gi xalifa ñas di bàyyi ñoom Ahmed ñas ak Sidi ñas moo ma yónnee ci yow waaw jox ma ci ay awraat lu nga xam ni ni ma moo la ko yéene ndax yàlla ak sa taxaw ci wàllu diin ak ci wàllu tariqa mu ni dee ko jàng moom góor gi ñu jox ma ko wa tabaarakallahu waaw mu ñëwati moom nit ka ni ma sëtu cheikh ba des ca fees nee na daal ñaan yàlla boroomam balaa wuy ji boroomam yow waaw ah, dafa am yóbbante yuñ ko yóbbante te bu sañoon dajeeg yow pour jox la sa yóbbante waaw ma ne ko ba tey fa tabarakallahu waaye lum ci mën doon nañ ko bàyyeeg ki ci ruq bi rek waaw waaw lu cay am mu def ko incha allah waaw tax na kon nag sant yàlla rek ñu ñaan ñi bëgg jël werd ndax moom la ñu yónnee ci not bi fii ñu tàllal seen loxo ñu jox leen werd bi ba noppi rekk ñu boole ñaan bi muy pour ñëpp ñu yeewi nit ñi incha allah ba yàlla dogalati ñu dajewaat fi ci jàmm incha allah kon nag ñuy bëgg jël werd ñu tàllal seen loxo ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa bismillah dafa am yeneen yu yu am solo yu fi amaat mooy yéen a ngi gis comme ni ma ko waxee woon daaw fii njabootu Seyd Mouhamadul Moustapha si Djamil muy euh, Serigne Cheikh Omar Sy ànd ak doomu Serigne Mansour muy Serigne Habib ñoom ñëpp ñu ñëw teew ci biir jataay bi da ngeen kàddu yi nga xamante ni bii Serigne Habib jël na ko yóbbaale ci Serigne Cheikh Omar da ngeen itam kàddu yi nga xamante ni bii moom moo jóge Touba te Serigne Modou Mbacke Abdoul Wadoud yëkkati ko. Euh, teewaaleel tamit mbokkam Cheikh Sidi Lamine Kunta tabaarakallaahu loolu mooy mooy Sénégal loolu mooy lislaam loolu mooy tariqa ñooñu noonu la ñu boolee seen bopp ànd te di ñaan ñëpp ñu ànd ci da ngeen sëriñ bi li mu wax yóbbante yi mu yóbbante mu dem fële ca kilifa ga Cheikh Sidi El Muxtaar donc loolu moom la réew mi am moom la ñuy sagoo. yàlla yàlla barkeel ko ci seen. leeru borom su ko defee sëriñ bi jox na ñi nga xamante ni bi ñoom la war a jox tariqa Cheikh Ahmad Tijaan yi ñoom la jox tariqa léegi mu ngi jëm ci ñaan waaye laata ñoo tëj jotaay bi euh, groupe Futurs Médias mi ngi continuer di gërëm di sant di ñaanal ñi nga xamante ni bi gunge nañ ko ci ah, wàllu liggéeyu Tivaouane bi liggéey bu rëy bi ku mel ni euh, euh, Serigne Moustapha si euh, ibnu Cheikh Abdoul Aziz Al Amin jàppale na leen ci wàllu liggéey bu baax a baax Serigne si Serigne si Abdoul Hamid Abdoul Hamid moom tamit jàpp na ci liggéey bi bu baax a baax am na ku ñuy wax Cheikh Gaye nekk fële ca Mbambilor Cheikh Gaye Tamba borom daara ja nga xamante ni bi tabarakallahu ma nga fa ñoom it jàpp nañ ci liggéey bi Abdoul Aziz Mbaye jàpp na ci liggéey bi ci la bokk wante waxuma la ci la bokk waaye def na ko ngir yonent bi aleyhi salaatu wasalaam am na ku ñuy wax Abdoul Aziz Ndiaye promoteur taalibe Serigne Abdoul Aziz Al Amin moom tamit tabaarakallaahu groupe bi mi ngi koy sant di ko gërëm ci taxawaay yu rafet yi mu def noonu itam la ñuy gërëmee euh, Makhtar Cissé directeur u Sénélec ci taxawaay yi ci eh, bàyyi xel bi ndax ba mu koy waxante ak Pape Hann ñoo toogoon mu wax ko la mu waxoon mu mottali ko ñu ngi koy ñaanal bu baax yàlla yokk ko yàlla gën a ko dollil ay garaatam bu baax a baax di ko bàyyee kilifaam yi ñi nga xamante ni bii ñoo tax yonent bi jaral ko li ba mu def ko noonu lañ koy waxee ci Abdou Aziz noonu lañ koy waxee ci sëñ Abdou Hamid noonu lañ koy waxee ci sëriñ Moustapha Sy Ibn Al Amin noonu ko waxee ci Cheikh Gaye ak mbooleem ñi nga xamante ni bii mën na am fàtte nañ seen tur wante jàpp nañ ci ci lu jege jàpp nañ ci ci lu baax ku mel ni soxna Marème taxa ñu di ko ñaanal yàlla wér di ñaanal yàlla bu baax alaaji Bokar njaay mu nga xamante ni moom tamit jàpp na ci liggéey bi bu baax ñu ngi koy gërëm di ko ñaanal yàlla tabaarakallaahu ah loolu mooy li nga xamante ni bi moom moo am fii ci champ de fii nag la waxtaan bi di jeexee di ñaan yàlla groupe bi li nga xamante ni bi kilifa gi mu ngi leen di ñaanal tabaarakallaahu yàlla su ko defee mu mel ni léegi li des mooy ginnaaw ñaanuk sëriñ bi ñu ànd ak yéen euh, ci wàllu journal bi ndax xabaar yi tamit mook dund bi ñoo ànd ànd jóge nañu ci wàllu yonent bi alayhi salaam waaye kon ñu jëloo leen antenne bi ngeen def journal bi sëriñ bi mi ngi ñaan yal na yàlla nangu li ñu fi ñaan yëpp yal ko yàlla def ci réew mi def ko mu nekk barke def ko mu nekk leer jik réew mi salaatu àlla bi ñu ci gàmm yàlla na ko yàlla nangu waaye di gërëm tamit oustaz yi ñi nga xamante ni bi jàpp nañ ci liggéey bi mel ni Adja Fat Bintou Diop ku mel ni ak sunu invité yi nga xam ne doon nañu ñëw ñoom xaaji njaga sekk ñoom seen ji li ñu nekkoon ca Kaolack ñëpp ñu gërëm leen ziar leen incha allah sëriñ bi mi ngi sàkk loolu kon nag ñu ngi baalu ak ñëpp di ñaan yàlla ba déwén ak incha allah caméraman yi preneur de son yi câbleur yi chauffeur yi ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla ku ci nekk li nga jàpp ci liggéey yonent bi balaa déwén yàlla na nga yëg ni sonn nga ci liggéey na la ko yàlla fay ngi baalu ak ñëpp di leen bàyyi nag ngeen dem ci journal bi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu إليه